lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ma jëmmalul boppam soxna jaara mbokk yi sëriñ bi neen asalaamaaleykum wa rahmatullah cheikh Mouhamadul Muntaxa Xadimal Mustafa sëriñ bi nee na ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu sa jëwriñ ji sëriñ Abul Baraka ak mboolem njabootuk cheikh Mouhamadul Fadal gi yëpp nee na mboolem njabootuk cheikh Mouhamadul Fadal gi ñëpp ñëw nañu nee na waxtu wi dafa xat lool nekkoon dañuy tudd tur yëpp. nee na moom itam mi ngi lay nuyu ci turu jëwrinam Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Amadou Fadal ndax mi moom ak Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne moo yor kaddu kër gi ak mboolem seen rakk yépp ak seen doom yëpp ak taalibe yi ak mbokk yépp nee na bàyyiwuñu kenn nee sëriñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax nee ci dëkk bu tedd bii soxna su tedd sii fi nekk nee na yàlla na sunu boroom yokk ay leeram te taasuñu ci barkeem. ci barkeb xadimal Mustafa nee na mi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba barkeb Soxna Jaariyatullaahi ñu ñëw fi ay at yu bëree bëri bëri bëri te fekk la fi nee na ànd ak wér ak gudd fan lool nee na xam nañu ne yow li nga bëgg te mu yitteel la nee na jëmbi Serigne Touba rek moo la yitteel liggéeyal sëriñ Touba rek moo la yitteel nee na daray àdduna soxalu la li nga bëgg nag. nee na ñoom xam nañu ko njabootu Cheikhul faadal gi xam nañu ko njabootu sëriñ Touba gi yëpp itam xam nañu ko nee na mbokki jullit yëpp xam nañu ko taalibe yëpp xam nañu ko nee na xam ba tax na li ñu fas yéene moo di laxasaayu ànd ak yow liggéeyal sëriñ Touba ànd ko ak yow nee na ndax loolu rek mooy dalal seen xel ñoom nee na nee na ñëpp ñëw nañu teew ci sa kanam tey nee na na nga ñaanal ñëpp suñu borom bàyyi la fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg nee na ta nga ànd ak wér. nee na tànk yi nag nee na tànki taalibe la tànki mbégte la nee loolu rek moo waral ñu ñëw tey ngir ziyaar si la nee ñoom de amuñu lu dul yow yaa fi sëriñ Touba ci kaw suuf nee na amuñu kenn ku ñu la gënal ci kaw suuf nee na am na loo xam ne nag nee na mi ngi koy wax mbokki taalibe mi nee na taalibe yi Cheikh Mouhamadul Mountakha mii mooy sëriñ Touba sëriñ Touba nee na kenn waru ko yab te gis nañu ni taxawaay bi des na dañ ko yab nee na te loolu jaaduwul nee na am na ku baax ku ne ko Cheikh Mamadou Fadal nee na nee na yàlla nañu yàlla musal ci ak miineel ndax loo miin lu ne yab ko te loo yab doo ci jariñu nee mu wax Cheikh Mamadou ne ko nee xam nga yab sa kilifa lu muy jura ñu ne ko Mbàkke ñun de xamuñu ko de nee na nekk fa ba jóge fa rek daal di faxasu nee na te loolu musiba la kenn bëgg ko nee sëriñ bii nee na du wax kenn dara ñun ñii ñoo war a am fullay am fu ñu ko teg def ko kilifa di ko jàppale ci liggéey bi te bañ ko fooye nee na pom yi bari na lool te loolu jaaduwul nee na yi ñuy wax nee na fu ñu toll di photo jaaduwul nee na mooy Serigne Touba ci kaw suuf nee na am na kër yoo xam ne bu fa demee appareil ya ngay yor dañ koy nangu ko koy nangu kilifaam lay suturaal di ko dimbali te ñooñu amuñu solo nee na kii mooy Serigne Touba tey nee na nee na nañu ànd moom ngir Serigne Touba déglu ndigalam bàyyi ay tereem Serigne bi na nga nag Mbàkke nee na dañoo matul rek nee na rëq-rëq yi bari na lool waaye nga jéggal ñu rek te xam ni doomu aadama rek moo matul waaye la ca kanam fas yéen fas nañu yéene li weesu dañ koy rëccu mbokki taalibe yi sëriñ bi amuñu ludul moom nee na moom itam amul ludul ñun nañu xam bu baax a baax cër bi cër bi rëy na lool cër bi suñu borom moo ñu ko faggul muy sëriñ Touba tey jii mooy sëriñ Touba ci kaw suuf nee nañ ko toppatoo di ko fonk di ko wormaal Cheikh Mamadou Fadal daan wax ni nee na ñett dañoo nuróo te bokkuñu ragal wormaal ak wattandiku nee na ragal yàlla rek moo ko jagoo wormaal nit ku baax nee na boo nekkee ci àdduna wormaal ko bu fi nekkatul wormaal ko nee wattandiku nag ku sàggan kon nag sëriñ bii rikkuwaay nañu ko warmaal ngir sëriñ Touba te bàyyi pom yi nee na ëpp na lool nee na jaaduwul nee na bu ñu gisee jàmbur yii di ñëw di ñëw ci ak si sëriñ bii ñëw di ko ziyaare si fekk fekk ñu ñu yàpp ko nee na loolu du du ci sëriñ bi de ci ñun ñi rek la te boobaa daan daañu ñu ñëpp te sëriñ bi kenn waru ko yab jaar ci ñun nee na dafa dégg ku baax ku wax ni nee na fas na yéene yoonu sëriñ Touba wii kenn du ko yab jaare ko ci moom nee na loolu rek mooy dëgg nee nañu ànd ak sëriñ bi liggéeyal sëriñ Touba te bàyyi pom yi sëriñ bi ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu yi waxtu yi daa gàtt lool waaye ñi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba bu nagee ni déwénee ay déwéni déwéni déwéni déwén yu bëree bëree bëri ñu ñëw fekk la fii te lépp loo bëgg a liggéeyal Serigne Touba rek nga def ko ni ko bëggee moo ngi jéggalu bu baax a baax nee na waxtu yi dafa gàtt lool asalaamaaleykum wa rahmatullah fokki Serigne bi nee na alhamdulilahi alamin nee mi ngi fas yéene gën a yeesal ak cant rek nee di sant suñu borom mi ñu boole ak sëriñ bi di sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg nee di sant sangam su baax sii muy waa kër a Cheikh Mouhamadul sëriñ bi nee na mi ngi am mbégte mu rëy rëy di am xel mu dal. nee na di am yaakaar ju dolli ko ju rëy rëy rëy ngir seen jëmm yi rek nee na Pastef bi nga xam ne moom la yàlla dogal ci yéen muy seen tawféex mu di ak taalibe nee na loolu moom teel na koo yëg nee na am na ci tawféex kon seen jiigo yii jóge Touba ba fii nee na dëgg la ñoom xam nañu li ñu def xam nañu li fi nekk waaye moom itam waaye am na tawféex ci fekk gii ngeen di ko fi fekk nee na mu nekkal leen fi nee bi ñuy ñëwee nee na yóbbal wu rëy rëy la koy indil. nee dañu koy yeesalal léppam nee na lépp itam di ak taalibe nee dañu koy yeesal bu baax a baax a baax nee na loolu itam mu amel leen ci cant gu rëy rëy rëy boo xam ne bii yamul fenn fu dul fa borom fa kanamu borom liggéey bi nee na seen cant moom foofu rek la jëm nee na sant na bu baax a baax a baax nee na xolom sedd na bu baax a baax nee na xelam dal na bu baax a baax nee na yaakaaram ko na bu baax a baax nee na fita fitam itam gën naa rëy nee na loolu lépp nag nee na yéen a ko indil nee na yëg na ko bu baax a baax nee na mënu leen a sant waaye nag nee da koy jëm rek nee na mi ngi leen di sant fa ca kanamu borom liggéey bi. nee na di ñaan ci barke borom liggéey bi suñu borom gën leen a sàmm gën leen fee bàyyi yàggal leen fi lool te di leen tëbb kattan gu ànd ak wér nee na loolu rek mooy seenu ñaan ci moom nee ak taalibe rek moo am solo ci ñun nee yàgg na koo wax nee na dafa wax ni nee dafa waxoon bu yàgg na njabootuk Serigne Touba nee na bu nee njabootuk Serigne Touba nag taalibe yëpp dugg nañu. nee dafa wax ne bu ñu àggee ci di jéggaani ji ak taalibe kër Cheikh Mouhamadul Fadal la ñëw. nee na loolu ba ma ko waxee yàgg na. nee na ci fu wóor la ko teg. nee na yàqin ju wér la ci am. nee kon nag loolu. nee na bu amee tawféex nee na yàlla def mu nekk fii ñu fekk si ko fi ak kattan gi ñu fi indaale mu di ak taalibe neena ñu jox ko cër bii ñu ko jox nee na loolu nee na rëy na ci moom lool waaye nag soññ na ko lool ci sëriñ bi te loolu rek mooy li ci am solo nee na xolom sedd na bu baax nee na mi ngi sant bu baax di leen gërëm te jotaay bii nee na mi ngi ciy gën a yeesal ak jaayanteem ak sëriñ bi di gën a feddali ak laxasaayam fas yéene koo ànd ak ñoom rek ci biir ak ci biti nee na fas yéene sax dakk nag ci liggéeyal sëriñ Touba nee sax dakk ci jaamu yàlla. mooy sax dakk ci liggéeyal sëriñ Touba nee na day wax ci ak waxi taalibeem nee dañuy sax dakk ci liggéeyal ci jaamu yàlla dañuy sax dakk ci jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi sax dakk ci liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla nee na loolu waxi murit la nee na mooy dëgg ci moom nee na jërë ngeen jëf Mbàkke nee na xamul nan la leen sante waaye na ngeen xam ne mu ngi leen di bëgge bu baax a baax di ko seereel borom liggéey bi ñu ngi leen di bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax ci baaxu borom liggéey bi aku ngëneelam ak darajaam yàlla sàmm leen gën leen a sàmm te aar leen te bàyyi leen fi lu yàgg a yàgg fan wu gudd a gudd a waxtu wu nekk suñu borom di leen tëbb ak wér gu ànd ak kàttan ngir ngeen ngir ngeen ngir mën a sax ci seen cër bu lay bii na moo di ak taalibe mu dik taalibe kon nag jërë ngeen jëf tawarkal la jërëjëf mbag nee na léppam ak cant la salaamaaleykum wa rahmatullah na maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma soxna jaara